Euh, jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ak mbokk internautes yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di amaan ak contentement bu mag a mag a mag mbokk yi niñ ko defee woon fële ca Tëngéej ànd ceeg doomu dàngu def ko bërki démb fële ca Caaroy Géej ànd ceeg ki nga xamante ni moom mooy Baye Mandione mi nga xamante ni moo war a ak Zarko te noonu lañ ko defee fii ci HLM Grand Médine fekk fii fekk fi fekk fi xale boo xamante ni ndaanaan la fekk fi xale boo xamante ni champion la gars yi ñu bëri bàyyiwuñ ko xel boo xoolee huit combats la def huit victoire jëm ci neuvième komba war a daje ak Njambaan 2 tey ndogu mbër lañ wax ak ki nga xamante ni moom mooy Alboury Alboury Birame Penda Ndiémé Fadam ñu ngi jëm ci bésu la quinze mai ànd ceeg ki nga xamante ni mooy moo Guide Events ànd ceeg euh, Pape Bathily ah Souleymane Bathily ak ki nga xamante ni moom mooy as bekaay Bantamba TV ak mbokk internautes yi ñoom ñëpp ñu ngi ci ànd ak ñëpp ndax bés la boo xamante ni bés bu am solo la ci làmb Fadam Tou waaw alaaji Baye Balla Mbuub maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di ñaanal site internet yëpp Fadam maa ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax yaakaar naa ne tey jii li ñu indi fii warta bett kenn ndax yaakaar naa ne nañ ko doon defee rek lañ ko defaatee bu ñëwee ci Alboury nag dina bett ñi fi dëkk waaye du bett waa làmb ndax moo wane lu tax ñu ñëw fi yaakaar naa ne tey bés bii la 15 mais moo gën event si dañoo tudd tëgg benn bés boo xam ne nii dañ cee boole ndaaraanu làmb yëpp yaakaar na ne bés bu ñu boolee ah, Baye Mandione ak Zerko boole ci Lagros ama neex boole ci doomu dàngul Jordan boole ci ki nga xam ne mooy Cobra 2 ak ki nga xam ne ni mooy Baara Ndiaye boole ci njambaan 2 Albouri rek doy na palmarès ñu ne luñ ci yokk ñu ne yokk nañ ci buuseeg Alaaji Mbay mi nga xam ne daan ñëw di doon dar kàpp boole ci liiru jaan ak wulli yaakaar naa ne bés boobu tey jii moom la ñuy waajal nga xam ne tey jii ci kàttanu yàlla bu ñu naanee ndox ñaari fan ñaari semaine lañ ciy teg daal dugg ca bés waaw te tey jii yaakaar naa ne bés ba ku ci mobilisé wu nag yow la des. ndax moo gi daa jël bés ba jël ticket supporter def ko ñaar téeméer. yaakaar naa ne man naar naar yaa ngi noonu. damay entraîné rek bëri wax la waaye ku ku ku mën a mobiliser rek bés ba dana feeñ. ticket supporter ñaar téeméer ah ku jënd di bloc wala 30 bloc yow la de. kon nag la 15 mai ñu ngi koy waajalee ñëpp El Hadj Baye bala Mboup ñu ngi nuyu nag ah ki nga xam ne nii mooy tey jii Diaw Fara mi nga xam ne tey jii moo ngi dalal ndax mbokk ndey koy jur. tey jii ñëpp ndogu nañ ci jàmm te ñu ngi waaj a reer te yaakaar naa ne Alboury ak Diaw Fara ku leen reeral rek dañoo fay si bor waaye reer nañ fu nekk alaaji bal mu ba ci kanam ah jërëjëf euh, Fadam waaye waaye waaye ndog nga fi ndogul rëy mais mais yow mais Alboury tànk gis nga ko tey bàyyi nañ Pawlish bu gisee nag te damaa diw ba ba nit mbat tey moom damaa laal meleen gu doy dama ko gisee mbaa du am lu fi mu ne nii Pawlish nee naa sama tànk yi weexaay bi mhm. damaa def plainte contre x mhm. denc ku ko tuddati ma tëj ma denc loolu. Ah. waaw. léegi nga ah, weex na waaye diw na de. ah mais damaa. walaay meloon nañ ma ba ma niin de waaye gisoo li yàlla def. ñu ngi ah, ñu bàyyi nga nuyu. waaw bisimilah auzu billah inna wali yàlla ah. di nuyu di nuyu Sénégal. di nuyu monde entier. di nuyu waa Grand Médine bu baax a baax a baax di nuyu. sama dëkk waa Jolof Mbalaxe Mbuula Kàlloo si Yaya Kulim Dioum mhm. di nuyu waa Kaolack bu baax a baax a baax di nuyu euh, waa Parcelles Patte d'Oie Grand Médine Grand Yoff di nuyu ñëpp waa Kër Massar surtout di nuyu euh, waa koñ bi mhm. ku ñëw fii xam ne tey waa koñ bi mhm. génn nañu taxaw nañ nu ñu war a taxawee organiser ndog yi macha allah muy jaamu yàlla nag. wax dëgg yàlla moo get even si jàpp si Pape Souley jàpp si Fadam jàpp si Saliou Ba jàpp si xam nga mooy sama manager Saliou Ba wax dagg yàlla di di di di nuyu waa euh, waa Grand Médine yëpp surtout 100 Grand Médine bi nee naa la ba 100 pour cent di xew ku ne di naan 100 pour cent boobu ñun nee naa la nekk ci xef yi nekk ci xol yoo ko gën. Grand Médine mobilisé nañu ku gis Alboury nam daan génnee Grand Médine ak léegi ni muy génnee Grand Médine nga xam ne euh, Grand Médine génn nañ voilà nga xam ne génn nañ mais di nuyu ñëpp di nuyu waa Grand Médine yëpp di nuyu 100 pour cent bi di nuyu euh, Maron ah Baye Pël ak Ali ñu nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi di nuyu mbari yi ci nekk yëpp. ah ku ci mel ne Agogo mi ngi ni toog Mori Cargo brise de mer xam nga caatu piol bi ah di nuyu ñëpp macha allah. ñu ngi nuyu ñëpp ak waa banlieue treize waa mafia bi gis nañ ñu jàppee ci ndog yi taxaw ci bu baax a baax. lu bi da ngay wane ni sama buur la waaw nee maam seetlu koy jël. bul sori Alboury Birame Penda Ndiémé Ndiaye jaata Ndiaye kicc ma Ndiaye Malick Saleh. ma Ndiaye Malick ak ngeen dem baay jëlee borom birim baak mm-hmm. nday di bàyyi benn gerte bu doon ñaar kon mu sambar maak bàyyi soxna mbay nee naa la dàq sa bukki tàkkusaan terewulaa ub sa gétt ay bu ginax doon tux ah. kon ñag boo seen mi boy boy man lay doon ay euh, cukkali cukkali hmm. cukkali njiglaan njiglaan sere sere njaajaan njaay xale bi nga xam ne maamam euh, bu ko kenn masaana tooñ day bàyyi bañ mat fukk mu boole duma ku masaana yàq ay waxam di ko defaraat te la muy agressif agressif hmm. social baa ko ëpp ah. waaw moo bënnoon teen moo bënnoon teen ba sa jolof waa jolof di sa naan ba réew ma naan ca ñëpp te bu ko neexoon mu def ko paan juróom tabaarkàlla mais defu ko mm-hmm. di nuyu ñëpp Sénégal yëpp di nuyu fan sa Alboury yëpp macha allah di nuyu waa koñ bi booy taxaw nañu ci ndogu yi bu baax a baax a baax ku ci mel ne Ali Cheikh Seck ah aada ah, xale jigéen yi ñoom Kole ah ku lim da ngay bari nañu macha allah ñu ngi ñëpp Alboury dafa a ah, waaw koor gi moom wax dëgg yàlla dugg nañ ci bismillah di waaj di ko waaj a jeexal euh, lépp te koor nee naa la bu bu ko bu ko keneen santaane woon damay bañ man. waaw ah, waaw. ndax lan. ndax lan ndax sequma koog waaw mais yàlla yàlla ma nga xam ne kenn xamul nu mu koy def. moom moo ñu ko digal kon dañu koy def ah ca nam ñu ko waxee boole ceeg maanu a di di ci jaamu yàlla ndax weeru promo la. waa mbër yëpp dañ ñëpp a ngi woor ñi mën a woor ñu ngi woor ñi mënta woor ñu ngi xool nuñ ko nuñ ko waxtaanee mais dama leen wax na nañuy woor. ndax woor wax dëgg yàlla yàlla moo ñu ko sant kenn santu ñu ko. dëgg la te wax dëgg yàlla boo nekkee di entraîner nee naa la loolu ndaw koy def. am doole wéer koy def xam nga loolu yëpp te ki ko may mooy yàlla suñu borom. xam nga te bu ko neexoon bu la tegoon bëñ buy métti rek tey doo dem entraînement. Mm. xam nga mu may la nga wér. xam nga at mi yëpp di dem di bëre ji di daan bu desee lu benn weer mu ne la jaamu ma ci xam sellal ko war ngaa mën a bàyyi lépp sellal ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala sa diggante ak allahuma laka sumtu waaw allahuma laka sumtu ndaysaan sama xarit bi ba bi ko amantu ndaysaan wala ala risque aftartu faxfir li maa xadamtu ba maa axartu buñ na ndog jot na fii ci Dakar waaw ak li ko wër sama xol bi sedd ba mel ni waragum bott ah waaye barki sëñ Maama lu mu sedd sedd sedd buñ naa salaatu xayru mi na nax bi ma delloo sama jikko <laughs> bëgguma ko. asalaatu <laughs> xar mu ne noonu waaw moom defuñu nee na tabarkaala. ah defuñu nee ah, eh, na. Eh, eh. léegi nag ñu ngi ñu ngi jëm ci maanaam ñu ngi jëm ci bésu la quinze mai nag. wala ndeysaan. Hmm? léegi Alboury bëri nga fi sa diggante ak Sa Ndingler yàlla may la ndam. nga bëri fekk sa diggante ak Joe Technique. ñu ci bëri jox favori bi Joe Technique. Hmm. nga ñëw am ci ndam lu rëy. dem ba Alboury nekk mbëru askan wi waaye nag yaa ngi jëm ci combat bu mag nag combat bu doy waar ndax Ndiambane de du Joe Technique du Sandé Nguéniène du Boy Marola du du Mafal Sey du commissaire du du Boy Fall du Jama maa ngi sama huit combat c'est que tey la àdduna neex ni rek ni ñi xam ma te nee lu am yàlla la te mi ngi ci ruqam ne pat te ku dee moo la rey moo def li muy def Alboury nekk ci xolu jaam ñi loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax mais dama man làmb sama métier la. Baye Balla sama xaalis moo nekk CNG tabaarkalla mu gaaw baa mu yéex dama koy jëli man doxuma si dara caaxaan lu dul entraîner lekk tëdd. voilà ci loolu laay dox te wax dëgg yàlla gis am ay udal nag ci làmb ji ñi nga xam ne euh, def nañ seen preuve def nañ li làmb war ba ba nekk ci benn chemin bi man foofu laa teg sama bët bu Sénégal nag daa neex. Euh, nit ñi dañu yaakaar man dama ñëw di imposer comédie beeg wala genre yooyu li nekk si man yàlla moo ko def si man man forcé wu ma dara lépp loo gis rek dafa naturel ci man mii lépp lu ma wax rek dama kaa war a wax ndax xale laa moomu laa xaw ma dara xama mais euh, juste di la wax rek Sénégal nañ delluwaat seen xel man su man lépp luy bégal doomu aadama dama ciy nekk boo ñëwee si koñ bi boo xoolee ni may doxee ak koñ bi nga xam ne kii forcé wul dara ñoddiwul dara juste rek damay bëgg lépp toujours ku ma nekk ak man di kontaan di jaaxaan mel ni kuñ coqataan ci poqataan woo na jaar bu soo borom poroxaan dama bëgg ñëpp dafa am sama benn sama benn xarit bu ñuy wax Tidiane Tidiane iPhone mu ngi nekk marché waral waaw dañuy waxtaan sànq mu ne ma dafa am benn jour mu xëy mer fajar mu mer mer bu métti mais nee na sa benn vidéo la seetaan mooy bi ngay waxee wala adiyaat daan mais nee na keroog nee na keroog dafa dañ ci saasi waaw loolu mooy Sénégal te mooy Sénégal tey boobu euh, lamb la woon nii rek fo nekkul lu ma programme dama daan sama xol sedd saar bi nekk sama xel ma wax ko xam mais am na ñoo xam ne dañ ma ci mere mais am na si ñoo xam ne dañ ci kontaan ah di reetaan ndeysaan mais ni nga xam ne àdduna moo demee noonu Sénégal moo demee noonu fii euh, kenn mënul def neex ñëpp kenn mënul def tamit ñëpp bañ la mais juste rek li licencié bi del def li nga xam ne ah mooy licencié bi di jubal di leeral bëgg lu baax moytu lu bon mais Alboury lan mooy ay ambition ci wàllu làmb gis nañ ne nga dugg ci làmb gaa yàggul waaye nga marqué ses empreintes Alboury lan mooy ay tey jii tey jii nekk ci kaw boo ma mësaan wax lan mooy seen seen seen seen fan lañ bëgg a àgg ci làmb am na luñ bëgg a wax Alboury lan mooy ay rêve ci làmb lan. comme li ma la wax rek man euh, Albouri saako pompiteer bi pompiteer la si. laa mujj li li ñëpp amee licence man loolu laa amee licence. du dëgg kon euh, amul kenn koo xam ne maa ngi lay bàyyi xel wala damaa bëgg li ci muur loo am. Balla Gaye am ko si euh, VIP yi si kaw Gris Bordeaux am ko si Albouri loo dafa daf cee bëgg a am lu raw lool te dama ko war a am ndax dama ko mën a am ndax ñoom dàquñu ma bëre. ëpp ñu ma kàttan su ma lekkee ba suuf ëpp ñu ma kàttan ëpp ñu ma xam-xam bëri mais tamit daa fekk lépp loo gis rek booy yéeg ci garab da jaar ci suuf boo yéeg ci kaw tamit da ngay jaar ci escalier yi. lépp loo gis rek da ngay yéeg ndànk ndànk ndànk. munoo jékki-jékki rek na sant compter boo gis si benn la commencé mais dañuy ñaan yàlla. yàlla musal ñu si cat musal ñu si lépp luy dog dog yoonu ndaw ah may ñu kàttan may ñu wér may ñu tamit ñu jubóog suñu mbokk ndax làmb affaire na mbokk la booy dem say mbokk na bu kii amul jom ndax ndax day def nii day def nii si koñ bi naka sudul noonu boo demee dañ lay door na daan mais toujours rek day déggoog say mbokk déggoog say waa koñ déggoog say dëkkandoo tey def lu baax di jubal di leeral moo bëgg lu baax moytu lu bon noonu la demee nag mais di jub la waaw combat la quinze. Euh, di ci woo ñëpp. ndax wax dëgg yàlla. woote bi teel na de Albouri. non il est il est temps. Albouri di nga ñëw ci woote bi. Albouri da nga sa diggante njambaan de njambaan daa wane ay preuve ci làmb. Uh-huh. nga wane ay preuve ci làmb. lan la làmb di xaar ci yow dima ah, la quinze mai. la quinze mai nekkul bës boo xam dañ ko war a caaxaane. la quinze mai da nga ciy bëri da nga lang ay champion. ndax te jii da nga koy dajeeg Baye Mandione ci bés. dañ teg Lac Rose ci bës dañuy tekki ama neex ci bés dañuy tekki ndaanaanu lamb yëpp ci benn bés Albouri nan la war a wanee boppam ak ay supporteram Albouri nan la war a wane boppam ci lamb ba tey ji ku xool Baye Mandione benn bët xool Albouri benn bët Albouri loolu la ñuy xaar ci yow dama naa damay ñëw na ma daan ñëwee mooy nan yokk ci tamit na ma daan ñëwee mooy nan mooy euh, entraîner préparer pare fépp samay mbokk waa Grand Médine ngemb ma waa Jolof ngemb ma waa Kër mosaar ñëpp ngemb ma waa Kaolack ma dem dante ji ndax làmbu xare la folo waaye ku daanu da ngay rus di ñaan yàlla nag yàlla musal ñu ci ay defet ak ay yooyu di ñaan yàlla yàlla ma ñu ndam ñu ngi def lépp la nga xam ne yaakaar nañ ne lii buñ ko defee dinañu may ndam ñu ngi lépp loo xam ne safaanoo naag làmb ñu dañ koy pakate ba mu mool ñu jël teg na le voilà ndax làmb ndam lañ ci bëgg ndam. mais est-ce que Alboury mi ngi entraîné normal ci ci koor yi. ah mais juste maa ngi entraîné maa comme ni ma daan entraîné deux séances avant ndogu damay dem cooxi cooxi daw loo may du buñ ndogoo ba pare ma dem écrit ba ànd waa écrit saa ñambur euh, dem entraîné ji ñu ngi entraîné daal. voilà ñu ngi entraîné ànd ak waa écrit saa ñambur suñu coach ay ñoom Bekay top 5 mbër yi fa nekk yëpp. xam nga ñu ànd ak ñoom di bëgg ndam ñun dañoo bëgg ndam te ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam bu baax a baax a baax a baax. Albouri Albouri nga dëkk ci gox boo xam ne nii daanaka mën nañu wax ne Grand Médine goxu làmb la tey ji Grand Médine amuñ champion yoo xam ne nii comme bu mel ni Modou wala kenn ak keneen nga nekk fi ndaw bëgg a yóbbu làmb fenn fii. tey ji boo dëkkee ci làmb nga nekk champion bu ndaw bëgg a perte ci bu ndax ñi dëkk ci jàmm ñi dëkk fii ci Grand Médine gëm nañ ne tey ji Alboury war naa mën nekk champion boo xam ne toll ni Balla Gaye 2 wala Modou Lo wala keneen Grand Médine bëri ay mbër bëri ay champion yu wane seen preuve Yékini Junior mi ngi fi Kama Junior mi ngi fi Brise de Mer mi fi Agogo mu ngi fi xam nga bëri na ay mbër ay Mori Cargo caatu piol bi nongoloo xam nga étoile Jolof ñëpp bëri na ay mbër voilà mais tamit yàlla mooy def euh, loolu ay jël dem wala ñoom ñëpp ñu ngi Grand Médine mais yàlla mooy def loolu yàlla mooy jël li ko fu neex waa parcelle mosu ñoon xalaat ne dinañ am roi des du dëgg mais yàlla fa la ko jaarale instant bi nii euh, waa waa roi bi parcelle lay yeewoo. xam nga Grand Médine nag bëri na ay champion ñu ngi fi ku ci mel ni Yatane Dia day bëri la 14 moo bëri la 15 moom it ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam bu baax a baax a baax baax voilà mais di wax Grand Médine suñu dëkk la. te rëyul mais heure bu ñu jugee ñëpp ndax euh, benn lanu di wax ni euh, Grand Médine autorité yi fi nekk. ku ci mel ni Youssoupha Niang ñu ngi koy woo ci ci làmb ji mu ñëw jàppale mbër yi mi ngi sax mais dañ koy ñaan ñaax mu gën a dolli. Tidiane Diallo tamit ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax a baax Ahmed Thiam tamit ñu ngi koy woo moom sax combat moom mooy géral t-shirt yu bëree bare bëri. xam nga ak madame la maire xaw ma monsieur le maire monsieur le may mu a jéey monsieur le maire ma waaw monsieur le maire may mu dajee madame la maire wala waaw la maire waaw madame mooy jigéen madame la maire may mu dajee tamit xam nga ñu ngi koy wax moom it mu ñëw teg ñu loxo bu baax a baax a baax ak Banna Diop xam nga moom it wax dëgg yàlla da ciy jàpp bu baax a baax a baax ah di woo ñëpp ñu ñëw ah mu ak Amet Amet Seyri Salima ak Kumba moom it day jàpp suñu mbir bu baax a baax di sama mag bu baax a baax a baax a baax taalibe sëñ Babacar Si a ñëwee le quinze naka la Alboury nar a ñëwee ndax léegi Alboury dootul mbëru Grand Médine kese mais Alboury mbëru askan wi Sénégal yi ñoom ñoo bëgg Alboury nee naa la xale xale du judd rek daw xale du judd rek daw du dëgg te kuy jàngaraam foo nga foo nga suuf am na yoo xam ne mënul ñàkk ci làmb mhm. benn bennal ndànk-ndànk fii yàkkamti yàqule lañ wax ba pare di yàq di dem ñun yàkkamti wuñ dara suñu àdduna lépp lu ñu war a am ci làmb ah yàlla tuddu na ko suñu jë dinañ ko dinañ ko lekk. lépp luñ ci lekkul tamit ñu xam ne nii la ko yàlla doole ndax am na ñu ñu dàq bëre fuuf ah ëppoon ñu coow dàqu ñu xeex dàqu ñu lépp ëpp ñu gàllaaj te wax dëgg yàlla demuñu. kon loolu nit nit day eh, nit day nit day nit day waa bëgg rek mais yàlla mooy. ñeme nga xeex ak Ndiambane 2. Ndiambane euh, ndax ñeme nga xeex ak njambaan njambaan bu xeexee ma dóor ko mu daanu dégguma njambaan bu xeexee dóor ko mu daanu ñeme nga xeex ak njambaan dégg bu bëree waaw ma yanu ko ba ci kaw sant waa Grand Médine waa Parcelles sant sam papa a Bamba général sant Youssoufa ñaami jàpp ci combat bi ak ñoom amee caam ak ñëpp ah xool fu gën a woowee barki sëñ Bamba ma dóor ko non Albouri da Albouri Albouri waaw déglu ma rek Alboury damaa bëgg nga xam ne fii kekk la nan du fi bonde Alboury ñeme nga xeex ak njabaan bu xeex nga dóor ko mu daanu Alboury deux Alboury njabaan deux sa xeex ak moom tuuti na la yóbbu na la ardo non c'est problème bi xam nga lan la waaw boo gars yi dañ naan euh, ñi xamul dañ naan micro moo neex ngay wax man su ma wax li nga xam nekkul ci man dama koy bàyyi doo arrière njabaan maa ngi gis mu toog si télé yi suñ signature contrat di nellu di wax wax yoo xam ne wax wax joo xam ne euh, dafa dafa jaaruwul ci man maa ngi gis mu may xas ah di wax ay góor jigéen nag ay ay ay da ngaa xeeñ ak sa sa daa xeeñ genre détail yooyu xam nga loolu moom peut-être moom mun na ko wax moom mu ji ko ndax moom nit ñi considéré wuñ ko dara mais man tey jii nii bés moo ko waxoon nit ñi daal sama kaw ndax man da porteur de voix la homme de publicité su ma waxee su ma ne dama taxaw déglu kon man waruma wax loo xam ne responsable mais daa am lu ma jaaxal Alboury nga ne njambaan bu dëggalee boppam. jambaan daf ma bëgg a yab. kon dafa yàq say wax. daf ma bëgg a yab te warumaa yab. lan moo tax warulaa yab. moom benn ñaata la te man saam ñaata la wax te moom day waxaale. nee naa la. Alboury dama gis ne dama gis ne nawloo njambaan. parce que sa digganteeg moom. da nga ko sax sa digganteeg moom lu waral loolu. njambaan moom a njëkk ci làmb. waaw. moo ma mag. waaw moo ma def le moo ma ëpp ay combat ci li ñu wax. waaw kon man su ma nee joxuma cër ñambaan damay wax lu ma neex. waaw c'est làmb ji li làmb lii la wax la après jëf. dañuy wax buñ paree ñu jëf li ëpp solo ci làmb nag nanga nga ba say wax nduróog sa jëf. bu soobee yàlla ñambaan bu jur baa du pousse du passe bu avancé daanu bu arrière daanu sama papa Cheikh Bamba général tamit maa ngi woo ci combat bu baax baax a baax ah ak ci mel ni sëñ Abdourahmane tamit mhm. ah ñaa ngi koy woo bu baax Pape Jamil Sarr Elhadj Gueye xam nga adjoint maire tamit ñu ngi woo ñëpp ci combat ak ministre euh, ministre sport Matar Ba ñu ngi koy woo bu baax baax baax ak Matar Diop euh, Matar Diop suba teel. Mm-hmm. kooku suma frère. ah Maxu suba teel. baax la keroog damaa dem. Euh, këram suñu naa fa. ah waaw. <laughs> moo lay invité woon ndogu ndeysaan. kon euh, ba may dem di ndogu ji damaa damaa xaw a tardé. tardé dix dix minutes ci xaw ma vingt minutes. waaw tey ci fajar gi sax dix minutes yooyu ma leboon ci ndogu. waaw ndogu ndogu nañ ba yàgg ba mu am vingt minutes may doog a yegg waaw tey ci fajar gi. tey ci fajar loolu du ma ko maye. ci fajar gi dama am damaa xëdd dañoo xëdd dañoo salaatu ma ma lekk vingt minutes yi doo doo doo war waaw. mais mais mais tey jii tey jii dafa am loo xam ne da ko war a lancer. Mhm. ndax am na ñu bëgg a jàppale Alboury ta xamuñu Alboury fan lañ jaar pour jàppale ko. ah ñooñu tey jii ku bëgg a dimbale Alboury te Alboury neex la nga gis ko mu nekk ndaw nekk ci wàllu làmb nga bëgg dimbale fan ngay jaar. nee la euh, fii àdduna la. Mhm. fi dara xëyul rek sotti. Mhm. te nee la ndox bu xeeñee dafa rax. te suuf en même temps bu sutantee dañ ko jàll. fii kenn mënul kenn fii kenn xamul dara fi fii fii fii ku ku am toll yenn niveau yi rek wala nit ñee la teg loxo nit ñee mën a yëkkati ba ci kaw mais nit ñee la mën a wàcce kon di woo ñëpp Sénégal ñëpp euh, di woo Sénégal ñëpp di woo monde entier ah di wax combat bi combat bi sama combat la dama cee bëgg ndam lu rëy a wane sama bopp nga nga bëgg a wane sa bopp dañ lay xaar te jii ci bëre wala dañ lay xaar ci xeex bu sax. non man man damay ñëw damay xeex si damay bëre damay def lépp du ma ñëw su ma ñëwee du ma ne mbër lii laa def bu def jotee rek ma def. Alboury wooteel. tàggool réew mi. waxtaan ak say supporters tàggu say mbokk tàggu ñëpp. waaw. waaw euh, di woote waat rek ndax instant dañuy woote bu ñu daanee bopp bu soobee yàlla toog plateau. gërëm ñi jàpp ci combat bi yëpp. Mhm. mais instant bi dañuy woote ne gars yi instant bi neexagut. dañ koy war a ñëw jàpp. barki seen am ñun combat dañuy fay. wan kii kii tam. waaw loolu tamit foofu sa baaraam ñu dugal ñëw da déglu rek. di wax ne. Euh, waaw làmb ji dañoo bëgg gars yi ñëw jàpp si bu baax a baax. lan lañ ciy jàppee non ñun dañuy fay euh, cinq cent mille ci làmb. mbëri ndaw ay mbëri ndaw lañ dañuy fay cinq cent mille ñu làmb ñu buñ paree def suñu bilan dinañ ci def presque un million wala deux millions ci ay sarax ay ñaan xama ak gars yi euh, euh, añ yeeg yëpp ak ticket yi ndax ñun dañuy may ay ticket xama loolu xaalis moo koy def di wax gars rek képp koo xam ne ah képp koo xam ne rek euh, yéene nga ñu nga ñëw jàpp si combat bi ndax suñ combat buntu la ñambaan yàlla mooy may ndam nag mm-hmm. mais ñambaan ñamaan man non ñamaan waruma daan man lañ faral dañu umpale njàmbaar te yow dafa mel du xam nga njàmbaar question de du question de jaar ci kawam nee la mbër bu ma mës a mi laa ci gën a respecté moom laa ci gën a jox ndax njàmbaar non juste xam lan moo tax loolu maa ngi moom euh, bokkuñu peut-être moo njëkk ci làmb mais nit ku nekk ak li di def ci yow nit ku nekk ak li yàlla def ci yow man man su man waruma toog sax di sikki saak ku dul njàmbaar sax mbër buñ ma munti booleel waruma toog di sikki saak naan dama koy daan wala du ma ko daan man pour man képp kuñ ma booleel maala la loolu nag du du sañ-sañ na ak ak da koy liggéey ndax waroo toog sa kër rek ah naan diw maa ko mën di boo demee dañ lay door nga daan ñun liggéey na loo xam ne war nañoo mën a daan ku dul ñambaan sax. looy woote ci grand roi des arènes lañ soxla suñu. looy woote say supporters ak grand mobilisation bi waaw lan ngay lan ngay wax say supporters parce que combat boobu. mobilisation ndax ñambaan de nee na dina teel a ñëw dina teel a duy stade bi. Grand Médine moom euh, Kaolack parcel ñooñu moom ah dañuy jóg par ndax ñoom ñoom ñoom ginaar ginaar fii buy xeex ak beneen ginaar sax ginaaru fii la faral kon ñoom ñu te te goxu làmb la te dañoo bëgg làmb ñu ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ku ci mel ni Amet tamit Seydou Salima di ko waxaat di ko woowaat bu baax a baax a baax ndax day jàpp si mbir bu baax a baax a baax ay Ablaye Diak ah ak gaa yëpp ak Matar Ba ministre des sports ah Nicolas ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax ci combat bi ay Marème Faye xama Waly seeki xama di woo ñëpp ku lim da ngay juum ah di wax na kontaan nañu si waa Grand Médine bu baax a baax a baax sama boy kontaan nañ ci ñoom yàlla na leen yàlla defal jàmm xam nga ak Matar Diop suba teel voilà di bëggee ñëpp di sant ñëpp di rafetlu toogaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mais mais waa banlieue treize bi waaw maa ma waa mafia waa waa waa waa boppu coor xam nga waa kafe gi dawalkatu fas yi mafia yi ñëpp ñëpp waa parcelle vingt deux ah ñëpp ñëpp di wax gars yi combat bi warul yomb 100 pour cent Grand Médine bi yaakaar naa bi mooy suñu première euh, sortie di wax gars yëpp ñu génn ak ñi ñi si am combat tamit yàlla may leen dam ñi si amagul combat ku ci mel ñoom agogo ay ñoom kii gars euh, yàlla may leen euh, yàlla may leen kii waaw Mortala Mortala tamit di ko di ko bu baax a baax a baax